koo xam ne ñëpp seedeel nañ ko ak jub seedeel ko ak màndu seedeel ko cëru yàlla xamuloo ne ànd ak ku baax moo dàq lekk lu neex moo dàq naan lu neex waaw moo ko dàq ànd ak ku jub jar na lu ne te dafa daan wax ni doom mënu maa fay wax na ko ba tey mënu maa fay bi yalla xamé xam ne la sama ndeyjoor ak sama chamoy ben ni ma te jaayu ba suma moñ yalla da xamna ni cheikh tariqam baax na man dama protéger protéger waaye ma nak sama njabot deg sama jam ah. Sering waaw ah sëriñ bi loolu ko wax yaa gën a dëgër fi nee na ba ma xamee sama ndeyjoor ak sama càmmoñ ba léegi mosuma ma yàlla ba ma dee xaleel ba bejaam mosuma ma yàlla waaw waxuma lalu jigéen de lalu sax ci du ngeen dox gis mukk waaw ya. wër leen fenn ba ñu neen lettre bi seen bàyyi ko bind di laaj jinni du ngeen ko gis waaw wër leen boutique yi ba mu jeex du ngeen dugg ci benn boutique ba ñu ne leen bon bii seen bàyyi ko ci laajoon du ngeen ko gis mukk waaw